للغادة الأجور والمسار bokki julliti bokki taalibe yi kër xaadim rasul asalaamualeykum wa rahmatullah ci tedd ngay cheikh mahamadul muntaxa mbàkke jëwrinu cheikh mat bamba yàlla na fi yàgg loolu tàndaak wér ci ndigalul sëriñ cheikhuna mbàkke ibnu cheikh mahamadul fadal mbàkke xaadim rasul seen bokkum taalibe sëriñ saaliyu ngeer saalum saalum bamba mooy dellu am mbégte di leen yëgal ak di leen fàttali 14e édition sant sëriñ saaliyu mbàkke xaadim rasul mu di ko amal ci tuuba di yi bàyyiwul kenn bés bi la Serigne Saliou ngir tuddee ko Serigne Abdoul Hakim Mbacké ibnu Cheikh Mahamadul Bachir dara jaalal ko Serigne Modou Dramé Serigne Am Diop bu Touba TV ba tey ci bés bi la Serigne Saliou di xamle ni dellu na jël lépp jagleel ko bokki taalibeem yi di ay wóllëreem di ay xaritam di ñoo xam ni lépp lu mu nekk ànd nañu ci ak moom bokk na ci Badara Badiane di chef service développement communautaire da Bambey ak Serigne Lamine Fall chef religieux Touba Baye Fall ga ak Serigne Djibi Fall di xaritam di doomu ndeyam ci Touba bokk na ci ñooñu le Serigne Alioune Dieye di commerçant ci Kédougou ak Serigne Mbacké boulangerie Dakar Serigne Alioune badar Diagne responsable politique gem sa bopp Thiès Serigne Modou di grand commerçant Kaolack Serigne Abdou Gueye di grand commerçant Dakar di itam jarbaatam ak Serigne Moustapha jang di xaritam ca Maroc Serigne Maram Diop Guinée équatoriale Serigne Iboulaye Mbodj Italie njiitul fédération soppey Serigne Saliou Mbacké Serigne Pape Nguer Dakar ay jëwriñ yoo xam ni sering lañu ci Serigne Saliou Nguer jaamu Serigne Saliou ger, Serigne Saliou Nguer Saloum Saloum Bamba ba tax ba sub sant Serigne Saliou mbàkke bi la muy amal ci ndindi mu dellu jël lépp jagleel ko jëm yilee te it fas yéene ko ànd ak ñoom ci ndortal yi ba ci jeexantal ga muy quatorzième édition sant Serigne Saliou Mbàkke Xaadim Rasoul ak Serigne Saliou Nger jaamu Serigne Saliou Serigne Saliou Nger Saloum Saloum Bamba alxames lay doon dëppoog le juin ci atum fii ci ndindi programme ba ci bis ba xëy jàng alxuraanul karim ak njàngum xasida bëccëg julli bernde wéy di dalal gan ñi ba 22 ñu berndeel mbooloo cadre yi ak am di jàmm yi kii amal conférence bi di sëriñ Gana Messere Maxtaar ginnaaw ba kii fanaani guddi gi ci njàngum xasida yi moo di sëriñ Xaadim Kebe ak ñi àndal bu ñu xëyee ci suba gi nag le 3 ci atum 2022 daañu amal tegu xeeru mbaar mu mag moom sëriñ Saliou Nguer fas yéene na ko liggéey ci daare alxuraanul karim bi nga xam ni moo nekk ci ndindi muy ñaan ci kàttanug yàlla ak mbaaxam képp ku teew ci bés bi yàlla na sunu borom faj say aajo barkeb Xaadim Rasul ci màggug sëriñ Saliou asalaamaaleykum wa rahmatullah Touba ñeel na la. yaa ngi mbër yu mag ya ñu rob. foofee sa Touba.